jërë ngeen jëf mbokk Wassare Lamb Wassare TV ñu ngi leen di leen daan bu ñu gisee fi ñu toll xam ne ñoom franchement fekk si fi daanaka boo xam ne gën nañ ko gis mbokk ci làmb du ma sow benn banque bu baax de nuyu naa. waaw Baye Fall ñu ngi lay ziar wax asalaamaaleykum wa rahmatulah auzu billah bismillah inna wali yàlla wax jërëjëf si lu baax xam ne si jaaraama si am na gàmbaay jëm réew mi jaaraama ci am nañ ko fàcc maa ngi sant Sénégal yëpp ñu ngi leen gërëm xamal sant fan la. waa fii mooy terrain Fass fii moom yaakaar naa ne cosaanu làmb la fii boo toogee fii rek maanaam bu fekkee yow làmba ngi daw sax yaram war ngaa yëg ne fii nii nga toog ni sëñ bi champion yu bëri ngemboo nañ fii Balla Gaye ngemb na fi bëri bayal bi nga toog Modou Lo ndaanaan boo xalaat bu nekk fii mu fii lañ doon defee soixante-douze heures mbéy fii nga daa toog xam nga ndaanaan di toog fi supporters yi mbërit sotte ko seen cumukaay gars yi nekk fee di waaw noonu la demee. boo ñëwee fii sa xel ci lan lay dem. waaw dem comme ni ma la wax rek ndax ndeysaan ndax waaw xoolal yëfi mbër rek ndax mënoon naa laa yóbbu si estade ba wala ma lu yóbbu si biir darkase yi xam bu ñu demoon si biir darkase yi sama xel si darkase lay nekk waaye ma la indee teere 72 heures Mbaye Guèye mënu maa xalaat leen lu dul làmb. waaw noonu la demee. fii lan nga fi def yow. waaw fii nag wax dëgg yàlla fii moom fii moom ngaay ci ngaaraama ndax fii trois ans laa fi bëre. benn bi dama bëre. dem ba quart de finale ñu daan ma beneen bi ma bëre dem ba quart de finale maa njaq jëriñu ñu def fistet mu daan ma trois fois yi ma fi bëri yëpp quart de finale laa fi yem ndax mosuma fee bëri daanu fi benn yoon laa fi daanu te boobu damaa daan daanaat daanu bises damaa daan daanaat daana dañ ak ñaq jëriñu ñeexir jëriñu ñu bëri ba sonn mu gañe ma par fistet après jour boobu la ñaq jëriñu daan Sa Thiès beneen jour bi ma fi ñëw dama bëre ba mu des man Zarko Ama Ndaw su ma leet naa bi nekk ci écrit bi ak euh, ak benn ja benn ancien mbër bu ñu wax Léo Léo André xaw ma daal far far far mu taw yàqu waaw waaye fii moom wax dëgg yàlla fii moom fii moom wane na waaw saf na saf na sàpp ak làmb wër na borom daaru Ka Dollé kañ dugg si ci làmb waaw làmb de moom sama premier combat su ma juumu dama kaa bëri une semaine rek Macky Sall nekk président kon yaakaar naa est-ce que 2012 xaw waaw boobu laa bëree waaw dama yéex dugg ci la man maa ngi bëre sama premier combat maa ngi ko bëre si finalu arena tour bi Tyson Tyson 2 Mandela waaw si laay door a bëre waaw si laay door a bëre waaye boobu fekk na nag ma toj mbapat jël ci ay naga ki ceeb a ki fu nekk. kon mbapat nga. waaye mbapat nga sëñ bi man mbër laa <laughs> bëre naa mbapat de waaw de jël naa fa nag 72 heures mbéy gay maa ngi ñoom garga seq nañ ko ak ay lamp faal. garga 2 moom Lamp Fall la ko daan après man maa daan Lamp Fall 72 heures mbéy naa fi xam nga bëri naa Fatick dé bëri naa ay Daara dem naa ay Ngaay bëri ji man sëñ man man samay morom kenn yabu ma si Mbapane ah. ñaata combat nga def. arène am naa 4 défaites 3 victoires 2 matchs nuls. ndax ndax ndax mënumaa jël ku daan koo koo xam ne daanu ma njëkkee laa nii la nu mu tuddati ndoy laxas ak ak ak bébé waaw équipe bi ngeen nekk kan mooy tête de file bi. tête de file fii amul tête de file jàmbaare fi am am nañ fi nag kii nu mu tuddati am nañ fi ay mag ndax fii ay mag fi am ndax fii ki fi gën a tuutee fi gën a dangereux xam nga maanaam dëkk Fass maa ngi nuyu waa Géejawaay di nuyu waa Mbëbë sama koñ di nuyu waa Kër Massar Malika waaye ndeysaan yàlla mooy jël comme ni ngay tànnee bëgg-bëgg sa soxna ngay xool fu mu la doyee nga dem takki jee ko fa loolu ngay jël si làmb Fass Mbaaw xoolal seetaankat yi sax koo songu daan. waaw wax dëgg yàlla ak yeneen bi fii moom nekk gi ma fi nekk ma ko. dama gis làmb dafa fiir mais dama la gis souvent da dem ci Balla Gaye wala ngay kii te làmb dafa nekk loo xamante ne affaire gox la. sa digganteeg Balla Gaye lan la. non su ma digganteeg Balla du dara su ma digganteeg Balla du dara mooy suma ma diggante man bu fekkoon man ki ma njëkk xam si ndaanaan Issa Pouye ba muy toj la ma daa seet si Issa Pouye ba muy toj la ma doon seet waaye xama tamit Balla Gaye daa baax daal su ma su ma ku baax la dañuy déggoo wax dëgg yàlla ak indi bi damay dem gaaleem moom bu ma rombee day taxaw ñuy saafonte noonu mu may mel si baala Gaye noonu laa mel si Modou Lo nag Modou Lo dara si biir corona bi romb na ma di entraîné ñu daje buntu këram la grosse dama ko yuuxu mu daw ba fi ma nekk ñu xam nga ma kay jaale ci baay Gora Lo papaam di ko ñaanal yàlla mu xaare ko xam nga àjjana ndax ñun bëgg nañ papa yu mel noonu daal ndax euh, doomam roi des arènes la teewul mook suma yaay ñoo bokk benn marché bu ñuy liggéeyee paa bi day xëy doon jaayante ba làqu ndax xoolul ne suma doom roi des arènes la xoolul kenn may ñaan di ñaanal champion Sénégal yëpp ndax kofi fi ñaanalul xañ sa bopp maa ngi ñaanal waa faas Gris Bordeaux bu ma nee Fass Gris Bordeaux laa fay wax bu ma nee Guédiawaye ne Balla Gaye bu ma nee Parcelles na Modou su ma nee Pikine ne Ama Baldé wala Boy ñaa su ma nee Diamaguène ne Siteu su ma nee mbuur na ëmb kii nu mu tuddati bombardier képp kuy takk ngemb nekk Sénégal maa ngi lay ñaanal di ñaanal waa dekki Lamb di ñaanal président lutteur en activité muy euh, Gris Bordeaux ndax ñu ngi liggéey ak mbër yëpp liggéey bu am solo waaw. noo gisee corona bi ak làmb fi làmb tolloon làmb demoon ba neex ñuy naan dañuy tëj am na combat yi taxaw corona ñëw dakkal lépp est-ce que booba ak léegi mbër yi yéen a ngi entraîné wala da ngeen toogoon di nooyal. waa gars yi bu nu ñoo entraîné ndax tamit dañuy dajale dañuy dañuy ter dañuy bañ mbooloo te maanaam comme boo nekkee ci dëkk ñu te ñun dañoo respecté suñu dëkk ndax ñun yàlla dañoo yere ñu teg boo añ woote añ teg booru reer woote reer dajale nuyoo boo amee naqar ñu bokk ko mun munoo romb fii te kenn nekku ñu dëkku ñàkk te nekkuñu Europe Europe da ngay dëkk si benn appartement dañ dekk si kaw lu mat dix ans doo leen xamante fii looloo fi am kon tant boo bu amee ñu ne nañu moytonte rek dañuy dañuy dañuy dañuy moytonte tey boo gisee lii mel nii bu fekkuloon Macky Sall démb waxuloon ne couvre-feu bi jeex na kon ñii dañuy sori ma takk max bi max bi sax mu ngi si poos bi waaye dèjà xam nga dañuy wane ne ñun ay taalibe Serigne Touba la te corona bi nee naa leen man mën naa leen wax garabu corona bi lu koy dindi. li ngay wax barki Serigne Bamba Mbacke li may wax bu ko ñëpp waxee corona bi deñ mooy lan suba midi pile nañ ko corona te ñëpp taxaw dina jërëjëfe Serigne Touba mu jeex fi bu ñëpp sante Serigne Touba on faut dire cœur sante ko xolu sedd guyu ñëpp nag waxandoo ko mu deñ waaw. yow mën ngaa mobiliser waa côté bi. waay déggoo li ma la wax nañ ko communiquer suba si télé rek midi pile wala une heure avant ñuy añ bu nee une heure pile ñëpp taxaw na jërëjëfati ki moom Touba mu jeex. kon yéen a ko déggandoo <laughs> Kara Dollé ñëw ci làmb ñu gis da ngay gëj a bëre lan moo waral lool. non làmb gëj am rek waaye man musuma def. année làmb ngi am parce que. tëjante naa yow national nga andi sa benn booy muy booy ñaa je pense. muy waaw maa ngi nuyu booy ñaa suma rakk su ma rakk su may doom maa ngi nuyu sang suul su ma rakk su ma su ma ndey su ma xarit su ma lépp. waaw su ma neexee sax gàttal wax ji suma doom waaw may nuyu Mamor su ma rakk waaw ndeysaan moom mii nga xam ne Mamor suma ma naa la maa ngi nuy maa ñëpp ñoom bu fit gis nga fii nii champion dafay war a génn barke rasulullah. dañoo gis seen équipe bi. xaw ma seen équipe wala boog yéen ñi ànd dañ ci gis koo xamante ne au début day am départ may day dem ba ci am ay gàllankoor ñu xool kon buuba fit comme yow lan mooy lan mooy problème bi. waaw buuba fit maanaam nekkul ay affaire ak gàllankoor maanaam da ngay nekk ak say morom duñ la ñemee. non mais mais est-ce que ñeme bare na fi ñoo xamante ne kenn ñemewu leen te ñoo ngi ci làmb ji. waaw maanaam comme ak ak ay mbërëm comme buuba moom bu xeex day bëre day maase day jàppe day gaje lépp lay buuba sarig xam nga gars yi tamit dañuy jéem a xool man la sumbaay mburu pain xam nga gars yi bu ñëwee xool buñ duñ jël ay mburu mburu yu fanaan yooyu noonu dañuy xool mburu muñ ponceeg meew ba mu nooy nga xam da ngay ñëw rek jàlla la mu dem ñoom yooyu la ñuy wër waaye genre buuba fi di nga xam ne boo bëree ak ñoom boo xëyee <laughs> war a sangu faa nga damaa <laughs> yaakaar dafa bàyyi non bi gesu ko mu ngi si ginnaaw. laay laa kii bàyyiwul xanaa gisoo état bi bàyyiwul bàyyi sëñ Bamba. mais yow lan moo tax ñu gëj laa gis lan lan moo tax ñu gëj gis da nga amul adversaire wala lan mooy si problème wala nga bàyyi wala lan la. non bàyyi su ma ko naree def naan asib dee <laughs> wóor na borom daaru waaw ñun tàmbalee gu ñu bay bàyyi ñun ay xale lañ maa ngi judd le 16 janvier 85 xale laa sañu maa bàyyi bu ma bàyyi def yu fu tapet sëñ bi étage dama koy am ci làmb ji wala dem États-Unis ñëw. mais soo bëyeewul tamit dina métti lan lay méttee dañuy bëre la saison bu bee ñu bëre man am naa yaakaar si Gris 2 maa ngi nuyu suñu papa Abdoulaye Ndiaye. Gris 2 ban Gris 2 Abdou Diouf seen combat man dama see warut bëre ndax suma papa Dieye dañoo ne sa xaritu papa sa papa la yow sa xaritu papa loo ko yow doo ko papa kon Dieye sam papa la ndax xaritu Laxaat Ndiaye la te Laxaat Ndiaye sama waajur bu góor la waaw noonu la may ñaan Pape du Fall Fallou Ndiaye nañ joxanteeg loxo Abdoulaye Ndiaye da nga xam ne lépp teraanga àdduna la promoteur yi def benn mouvement. ndax ñii bu ñu xëccee dem fee ñii xëcc dem fële lamb day am problème. te ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg. waaye ñoom ñëpp kenn xëccul yóbbu pop kenn xëccul yóbbu Inde. yaa may déglu ñëpp dañuy xëcc pour indi Sénégal nañ bokk ndey bokk baay jox loxo Abdoulaye Ndiaye Abdoulaye Ndiaye jox leen loxo ñu liggéeyal Sénégal. ñu gis la nga nga toj mbapat dugg si làmb sa jiitu la mais gars yi la jàppee benn comédien la mooy problème bi. waaw comédien amul ndax man bu fekkee seetaan nga suma lambu ñu xam ne du làmb comédien ndax koo xam ne bu fekkee da nga koy daan boo ko daanee doo demee doo reer wala bu la daanee boo demee doo reer ndax man musuma bëre man ñaari yoon waaw kon kañ kooku du comédien wax dëgg yàlla xoolal ñu fi man jadli laa bëgg mu ñu ñu bëree man jadli jadli magu soq nañu ñu bëree wara kii kat daan nu mu tuddati euh, jam ceeri wala ambulance bu Thiès waaye sëñ bi yow. yow ma posé la question le journaliste nga wala da far. damay laaj est que ñeme ngaa. xamal da ngay déglu rek bu fekkee da ngay far nga wax ma bu fekkee journaliste da nga teg ko ci code ñu waxtaanee ko wala bokk. nañ ko waxtaanee kon da nga koy teey nga may laaj ma lay wax ah. waxal ba dee bul farati de bu ko defati loolu baaxul. lay ji ñëpp kër noonu la demee. asalaamaaleykum ah. ñu continuer nga ne bu la joxee avance li nga jël. waaye bu ma ko jëlul ma koy def dama koy maye may mbër dama koy jël ànd ak ñoom Mamoor ak ñoom Sang Suul Lamine Mbaye ngi nii dafa jugee eh, dafa jugee voyage ñëw jox ñu xaalis bëri ba pare dajale ñu Italie la jugee mu ngi nii nekk jàmbaar zoo zoo te bëgg naa balaa muy dem ma takk ak moom gan waaye boxu bari Serigne Touba Mbacke. gars yi dañoo namm sa làmb. sëñ bi man maa namm suma bopp man balaa kenn di ma namm xam nga sëñ bi toog fii naan ay neen saabu du fóot boppam saabu boo ko baay si ndox mu fóot boppam man damaa mën a bëre te man sama combat dañ koy seetaan. Baye Fall bi balaa ñuy dem fenn maa ngi gërëm Abdoulaye Daouda Diallo ministre finance di gërëm séeréem maître Tamaro Séeri Séeri Abdoulaye Daouda jaaloo baax si man maa ngi gërëm ngi gërëm waa suñu société Azem Azizem maa ngi leen maa leen di gërëm di gërëm Serif dara di gërëm waa carrière bi yëpp maa ngi gërëm Sénégal maa ngi gërëm Pa Iba Pa Mané xam nga chauffeur camion yëpp maa leen di gërëm di gërëm suma yaay ak suma séeri Maguette saw ak sumay doom maa leen di gërëm. ñu gis sa combat nga bëree ba pare noppi ñu daan la. mais affaire boobu def benn coow. benn ñaa nga ne ay lu may wax waa koñ ba. boobu lan nga xalaat. waaw ba tax ñu daan la nga yuuxu loolu loolu def buzz ci dëkk bi. waaw non loolu du buzz ndax man bu ma nee lu may def waa koñ waa koñ ba Bombardier yéen na fi loxo Ousmane Diop mbëkk na fi miir Balla Gaye diri nañ ko fi. Modou Lo jàpp nañ ko fi mu bañ a dem. kon man man ku nekk ak sa saalit rek man damaa pare combat mardi. ñu jox ma combat bi samedi. ma bëree gestu damm ba ma bëree kii moo ma jàpp yóbbu ma setewoo su ma bëree ba pare lu mat neuf quarts topp ma ma gestu gis ne la stade bi ñëpp sama man lañ topp maa fa indi ñëpp te wane wu 23 minutes 30 secondes laa bëri su ma daanoo gis sama waa koñ dama juum ndax lu ma wax waa koñ bi laa wax waaye dama waroon juum loolu waroon wax damaa waroon wax dama war si waroon jiital wooyi ba gars dama la man loolu may wax waa koñ ba waaye waxuma wooy bi nga ñibbisee bi nga ñibbisee yegg si fii Fass Mbao fekk nit toog di la xaar. non man waa Fass Mbao xam na ne man jàmbaar laa man guerrier laa sëñ bi non ndeysaan c'est que yow <laughs> sëñ bi yow wala yow yow yow sax danga maa xool suma kanam gi si ay kanam ay ndeysaan wala. <laughs> xool ma xoolal man su ma yow yow yow yow yow yow. yow yow bu ma la xoolee bu ñu dajewoon guddi bu ma la laajee li nga yor buur na Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni su amul médicament amul prise nag ma koy jox. non kon nga naan ay ibu préfet nag ay ay ay xasum loor ak kel ak bu yëg bu saab sëñ bi doo dara ak ay xasum wén. dañ koy ñàkkante man ak yow. kon nga gis lu metti booy di nga di nga daj lu metti barki borom daaru almuxti. mais gars yi day fois dañ naan Kara Dollé est-ce dina entraîné ndax bu sumee ko état de forme bi yooyu est-ce que di di dégg. da ngay gis yaram daam yaram comme Ousmane mi toog bu sumee ko da ngay gis dagg bër Bombardier yi ngaa gis moom sidit man ñi may bëre ñëpp sidit la ñu am te kenn ma see jàpp weñ ma ma tëdd li état mbaji la <laughs> xam nga état mbaji sëñ bi xoolal dama ne la xar bu tuuti usubane mii te bu doon xar la trente cinq mille lay jar man bu ma doon xar laadum laay doon deux cent mille lay jar kii boo ko rayee tëbëg si doo tufe ngay def te danga siy doole diwin man ku ma ray tëbëg si di nga ma mbaxal di tufe te doon denc si frigo bi lakk def sa graisse boo xam ne ay daxin tege dege yu baax si def état daa baax am ah. bi xoolal gis ma sama yaram bi damaa nga jëli ko la neex nga boole ñu si bayaal bii maak moom. mais est-ce que xam nga ne promoteurs yi ak ñi amateurs yi ñi seetaan lamb lii la ñu bëgg. problème lan mooy problème bi lan moo tax mënoo bëre man loolu mooy li ma jaaral. nekkul man man waaye man may utale ay combat man may taxawal ay komba boo amee mbër bu bëgg a bëri te mënta bëri jox ma ko mu wutal combat. mais la taxawal sa combat. non sama combat nag sëñ bi nag wax dëgg yàlla jënd bi man boo xoolee nag. wax dëgg yàlla bay taxawal combat du wutal nit combat du ma jël ay combat ay combat ay ay booy dis bëre spécial. sëñ bi nag nag bu mag tey man comme li ma lay wax rek comme tey jii man. tey jii man la sumbaay man bu ma nekkoon nag kenn du ma rey ci ay ay ay ay ay daje. dalee leer na Cheikh Béthio da xaar gàmm gi ñëw mu boole ma ci man kenn du ma rey ci ay ay tuuru famille man gàmm nga may rey mbaa layee tuur xasri mbaa tëbëg ah nag bu mag si bis bu mag lay dee man ay molo Lo Gris Bordeaux lay xaar bala Gaye Eumeu Sène. mais mais est-ce que loolu du la tardel tamit. waaye ban tardé. ban tardé boo xoolee ba léegi ba woo ngay xaa bés bu mag. nga ne. ma ne boo xoolee ba léegi ba woo ngay xaar bés bu mag. sëñ bi dama ne la bu fekkee combat man pare nañ ku bëgg ma wax ak Abdoulaye Ndiaye jam ceey ah. Mhm. barki Serigne Touba Mbacke jam ceey. Euh, mu daan. waaye doo ma bàyyi nga naan dóor tonnerre. ambulance Thiès yooyu doo bu bàyyi bu ma mënee mbaxalu saa na ma rey sëñ bi lambu ji amul luy yombu yaa may déglu te man instant yii nii sama booy dañoo daas affaire yi taxaw du ma xaar nekkatuma fi jamale suba de. pourquoi pas doomu daangu. doomu daangu am na komba moo kan. ah yaakaar naa na combat ah, doomu daangu dégg naa combat am am na komba boo ko vérifié ko xam. doomu daangu am na komba non doomu daangu am na combat wut na Serigne Touba laay Pythagore nañu ñu bëre. doomu Modou Lo. waaye doomu Modou man ma doomu Laye Diallo ak Assou doomu Mame Mor a ngi nii toog waaw doomu Père Mbaye Gueye. <laughs> ñu gisee ne kii bi kan mooy Mbaye Gueye lan la fi lan la fiy représenté Père Mbaye loolu mën nga koy laaj. sañ ngaa toog Sénégal naan Serigne Touba lan la def senegal non la représenté ci écurie bi laa. man mooy Fass Mbaw. waaye sëñ bi doo ma. waaw man mën naa xam yow nga xam mais ñi seetaan Sénégal kenn du fi présenté Père Mbaye Gueye. Mbaye bu fekkoon Sénégal la nga ko fi wax moo fi Messi yi. yaa may déglu. lambu Sénégal dégg naa ne Sénégal Père Mbaye Guèye rek moo fi jàll président jàll président jàll bàyyi Père Mbaye président taxu feneen Mbaye Guèye dem taxawoo Père Mbaye Guèye. loolu yëgu ma ko dégg naa supporter yi ñu am fi yëpp amuñu woon supporter de moo fi ëpp supporter sëñ bi xamal na laa bëgg yow nga wax seeg man dama bëgg mu ngi wax ci wax combat yi gars yi ñu bëre. non yow yaa ciy wax parce que man parce que man mun mun ma comprendre ñi dama leen di tere lamb ji. kan ak kan. bi yaboo ñu aj ma naaru sokaas jadli ambulance bu Thiès jam Thierry sëñ bi terrain nekk Dakar mu ngi jeex instant yi ñu ngi dugg côté Koumpentoum bi te foofu day sori ma damaa maa am si terrain Dakar yi na gaa yi ñëw ma téema teeral sama yaay. sa combat ak Naaru Sokaas day neex bu bàkkoo jaar Naaru Sokaas dañ ñoo boole daaw fay ko un million fay ma un million muy bañ naan nañ ko fay un million cinq cent yaa may déglu kooku moom ñemewu ma kooku daa war a ñëw rek ma soqeeku nag. Naaru Sokaas yaa ko dégg de nee fay nañ la fay ko ñëwal ngeen bëre bu weesoo Naaru Sokaas mais sëñ bi yow da nga ay coton-tige déggoo li ma wax jat lii jat lii laa la wax wala yow sëñ bi yow doo dégg man ma fii xam nga tamit buñ dee wax mën nañoo wax comédie tuuti waaye dama bëgg comme li booy boobu li moo taxoon Pawlish dóor booy bi ndax da nga fi ni ñëw pour ñu gisee fu la ngeen di indi ay comédien da ngaa ne ma adversaire ma ne la jox ma jat lii ah wala laay Pythagore wala jam téeri wala ambulance bu Thiès wax nga ak ñoom wala wala raqu war a raqu kii bi nu mu tuddati. Lagos non ñu waa Fass moom ku leen laal ma laal la. laay goote man mën naa leen fekk Thiès. doo bëre waa Fass. mukk. lu tax loolu. laay laa ma ek nekk école de lutte ah, ku ma bàyyi ci làmb. xam nga ku ma bàyyi ci làmb. général bu Malika ma rakk la ñoo bokkooñ. Mhm. waa écurie Kër Massar Fass keneen koo ma Dakaru. la moo tax doo bëre waa Fass bokk leen fi ngeen nekk. yow tamit xam nga yow waa Fass ak école Père Mbaye Gueye dina ngemb yóbbu ñu Tafa Gueye ngemb fee ñuy dem. sëñ bi loolu mën mais ma loolu mën naa ne. xam nga nu mu demee. est-ce que ah. ne wujje bi mu jugee ci làmb la làmb di waaye léegi ma laaj la yow yow tey yow yow mën ngaa jël ah fekk garab nga ne lu tax branche bi di sax si kii bi ci garab gi xam nga fu nan la mel comme yow sa kër papa bi moomal sa bopp ak sa kër yow nga génn si jëndi kër bu yow di nga jékki waa kër gee bu ñoon xeex ñee di nga sotal ñee doo sotal seen waa kër xam nga loolu day neexal làmb day yow ak Pape Ndoye wala yow ak Foza wala yow ak keneen foofu ñooñu xam lan lañ seq ak ñoom pare combat ñu yóbbu ñu bokk ñoom entraînement waaye wax dëgg yàlla ak yéen bi pare guñ sax pour bëre eh, émission bi su ma neexoon dem tourné ji ko foofu tey suba war na sëñ dinaa Mouhamed maa ngi nuyu giri de sànq rek lañ doon déggoo waaw di nuyu Lagros suma doomu ndey maa ngi nuyu Lagros suma doomu nday maa ngi koy ñaanal jàmm te kay wax ne ko xam nga bu yoon jeexul waaxusul lu jeex. boo amoon kàddu mujj looy wax. kàddu mujj gum dama koy jagleel waa Fass Mbaaw ndax wax dëgg yàlla ñëpp am nañ ay champion ku am Usu Bane am Mamor am Ama Ndaw am Buuba Fit am euh, Mamadou mbaay am Ibra mbay sëñ bi fii roi des arènes war a génn. incha allah déglu ma la expliqué na waa gars yi génn lijjantil tout temps yi ñu dugg ci école bi entraîné ñun boo gisee ñu toog fii kóllëre moo ñu fi téye ndax mënuñoo dem ba xamanteeg ñii tey sang soo la ngi nii écrit Kër Masaan mbooloo la nekk suma ma dama ko woo tey mu ñëw gunge ma xam nga may ñaan waa Fass Mbao yëpp dajaloo génn baay gars yi ñu entraîné si école bi comprendre nga maa ngi ñaanal ñëpp encore une fois may wax ngeen gërëm lii maa ngi sa gërëm som suñu waa carrière xam nga maa ngi gërëm ay dara sërif maa ngi gërë gërëm waa Azisem di gërëm Amdi Amdi Ngom sama mag yaa ngi déglu di gërëm Tamaro Seydi Abdoulaye da Diallo lim liggéeyal Macky Sall Fouta gis naa ko ñoo àndoot maa ngi gërëm maître Tamaro Seydi bu baax a baax a baax na moo ma jàppale yaa ngi dërëm di gërëm euh, xam nga. maa ngi gërëm ñëpp daal maa ngi gërëm ñëpp ku lim juum sant naa suma yaay di sant suma booy bébé ay almaami leuz isma suma doomu ndey maa ngi koy gërëm di sant mafia Maroc bi ñoom gis comme ni ko ni ko sama gars yi waxee maa ngi sant ñëpp di sant ñoom ndërëkin maa ngi ñaanal suma doom di ñaanal suma yaay Sénégal maa ngi ciy ñaan jàmm ah maa ngi gërëm suma rakk suma doom nday zënd maa ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm di wax suma benn père père Banqaas président Bouniouma Andi dafa gaañu maa ngi ñaan yàlla xaare ko àjjana ndax Sénégal ñëpp ko xam. Bouniouma Andi ñoom président. laay laa Bouniouma Andi boo yoree demal ba seen société bi nga jaay ko jox la un million billet nga ñëw fee ñu defal la ko weccet ñoo la dàqale jabar dàqale la kër boo dajeeg ñoom ñi ngay dajal côté côté géej bi yëpp naan leen yóbbaale ma Bouniouma Andi la de. waaw nañ koy rafetal sax naan récupérateur waaye ñun ñoo leen wax Bouniouma ndax ñoom si la ñuy for jaay for lekk for faxas for yóbbul dëkkandoo yi sant nañ leen gërëm nañ leen waaw waaye sëñ bi nag wax dëgg yàlla man maa namu tooyal ngemb lu bëre. Sénégal da laa namu. waaw man maa namu suma boppu di sant suma dëkk yaay kel sama dëkku papa kel di ñaanal suma papa yàlla xaare ko àjjana di sant booy toog fii ndax mënoon nañ ko bañ a def xam nga di wax ne Sénégal nañ jël matukaay ndax coronavirus bi fàtt nañu tax nañ ceeb yi tooyoo tooyatul boo lëggee da nga daa dànq ceeb muy génn nii ah waaw gis nga rafet na. suba rafet xam nga kon kon kon ñun man la suma lii rafet na sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp waaye boo ma génnee lii dina ma gënal de Tamaro damaa bëgg nga resevoir ma ndax wala nga wax ministre daaw da Diallo mu recevoir ñu ñoo ànd ak moom fuuta campagne bi yëpp ñoo nekk ak moom Tamaro nag sa loxo mu ngi ñëw bu baax waaye damaa bëgg daaw Daouda Diallo ñu xam ne ñun ay responsable lañ te ñoo àndoon ak yow si campagne bi yàlla def nga jël ndam li te jig nañ la tamaroo ñu ngi lay tàllal loxo di wax ne nga dimbale ñu Abdoulaye Daouda Diallo recevoir ñu Baye Fall Sénégal yàlla na si yàlla def jaamu adduna yàlla na si yàlla def jaamu ñu ngi sant yàlla di euh, Pape Malick euh, porte parole Tidiane yi. dañoo juum waaye foofu ñu woo njëkkee waaw ndeysaan waaw. waaye weesul ndax émission bi jeexagul ku baax la daaw heure bi daaw mu ngi ñëw suma kër sunu koñ kër gi may taxalool ndeysaan mu nekk ku baax ñu koy ñaanal yàlla ndax tamit ñoom lenn daa baax si ñoom bu ko gaa yi di fàtte gaa yi dañuy wax yàlla yàlla yokk seen leer rek waaye dañ leen di war a wax yàlla na leen yàlla yërëm xaare leen àjjana waaw loolu lu si baax la waaw ñu tàmm di waxal loolu kilifa yi ndax bu jël kilifa rek naan yàlla na yàlla yu taax ñu si leer yi est-ce que leer yi <laughs> maanaam ña leen di ñaanal àjjana daal ndax ñoom ay banni aadama lañ comme ñun ñu ñaan yàlla xare ko àjjana di ñaanal xalifa généralu kii bi nu mu tuddati cana euh, bay yàlla xaare ko àjjana may wax ne Baye Fall wóor na borom daaru almuxti dama yoreel sumay may supporter bor yoreel waa Fass Mbao bor bëgg nag wax dëgg yàlla gént bi fay leen ko maa ngi gërëm Koddu Njaay suma jigéen maa ngi gërëm bu baax waaw maa ngi euh, ñaanal maire Asi yàlla xaare ko àjjana goro Baba Diallo la maa ngi koy jaale ñoom Koddu Baye Fall li may dama bëgg nga génne ko ndax temps dafa amul xam nga di wax ne président Alioune Sarr ndax mënu maa wax te waxuma ci comme li ko gars yi di wax laa koy wax làmb yaa tax paaka génn si denc yaa tax mbër di sol jasineer di baraaye di ñëw maa ngi lay ñaan comme ni ko gars yi di waxee ndax kilifa nga ah, danga ngaa yor ay doom nekk responsabilité nekk noobul kon bul xaar ba bañ lay génneex naa la demal demal demal demal lu ñaaw la ya instant yi ni Balla dafa war a taxaw def ren di segg Modou Lo taxaw def rek di segg ñu yóbbul la cur ku sàccoon bëgg a daw baa nga def bëgg a bëgg a dem sa gun gu ndax takkal ay sër faasal la nga génnee grand porte moo gën gars yi di la wax ay demal demal demal te yaakaar naa ne. demal bi ñuy dem yow dañ ciy ànd. non maanaam sëñ bi nag wax dëgg yàlla gi ku def vingt cinq si kër sax da ngay bëgg a tuxu yàqu fi dara nag waaye na dem keneen ñëw. di ngeen bëgg lu bees quoi. waaw mais yow yow da ngaa yow nañ dem fee ma dajale ensemble boo xam doo suumi lii. waaw noonu la demee wala yow nga jox ma fay ma ndax tamit vie yi après day bëri de <laughs> bàyyi leen job ci kaw mbëri nag day leen joxe ah ah. yàgg na loolu wax naa ko maa ngi gërëm isin doole suma papa suma xarit waaw kontaan naa nag ah waaw instant nii bëgg naa yàlla na yàlla def jaamu. gis ngeen noonu lay demee ci wasaare làmb chaque journée li ñu ko bëgg defee ak ay mbër kontaan nañ ci moom bu baax a baax kaa doole Sénégal da koo namm làmb da koo namm maa ngi nuyu maman maman Cheikh Baba kenn du moom Baba moom lay bëggee maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko bëggee ak ñëpp nag du ma lim su ma limee rek damay juum kontaan naa ci yow bu baax a baax Adama jaajëf ni lañ koy defee ak wasaare làmb di leen jox rendez-vous nag am na émission bu bees boo xamante ne moo ngi ñëw ñu koy wax keppaa gi chaque dimanche ak jeunes yi ku ci nekk li ngay dund sa koñ yaa ko xam dina daw dimanche day commencé incha allah. dina jox rendez-vous ñu dem Mbëbës dama bëgg nga ñëw mu yóbbu mbalit ma ndax émission du laaj ay koñ rek da ngay ñëw ñu dem mbalit ma. est-ce nga ne gox bu nekk ak muy dund ak jeunes yi fa nekk yooyu lañ soxla. waaye da ngay ñëw ma yóbbu la mbalit ma mbalit ma ci kaw jal nga jël càpp ma jël càpp ñu toog si jalu mbalit yi waxtaanee ko ndax ñun Mbëbës mooy suñu almay. jàppal bés jàppal bés yow jàppal heure ba mu wooyee ma yóbbu la mbalit ma semaine prochaine. non nag sëñ bi damay seer seerlu nag doo ma tey bëgg maa occupé suba mel ne man damaa lambu da ngay jël élan tuuti nag dégg nga <laughs> nekkul damaa. kon ma jël rendez-vous da ngay ñu pousse ko ma yóbbu la mbëbës nga tourné émission bu neex bu maan yi nga wax buuju maan dafa la teraanga goo xam ne dootoo fa gëj. barki Seydina Muhammad. Adama Paye. ñëwal ñu dem mbëbës. waaw jaajëfati ah. kontaan naa ci yow baax jaajëf.